foofu foofu war nañ fee bàyyi xel moo tax yàlla ku ko ragal ku ko ñime amul ndax saa ko boo nee ñime naa ko day yónni lu tuuti mu ñëw gësëm na ba nga yëg ni yiw nii nekkoo te loola du tekki dara ci kanamu yàlla kon corona bi mën nañ cee jàngate ne euh, am na benn yëg-yëg bu mu andil nit ñi ñu war koo jàngate ci yàlla war nañ cee mën a jàngate ci ndekete pas-pas day faj feebar pas-pas day faj feebar mbokk yi feebar bi bi ñu commencé di wàññi buñ gis nga buñ bàyyi woon wàññikaay yi sax woo ko ñu dem doomu aadama daa bokk ci damiram maanaam yëg-yëgam bu dee sentir rek mën naa indi feebar dama ciy joxe benn misaal ci seen soxna soo xam ne daal sëggoon fenn di gaanuwaay lu mel ne yàlla daal di daw rek romb ko ci roñ ay tànkam soxna si am sentir ci ne yalt wi ci awraam la dul tëdd ko feebar bu metti gëm ko lool nag mais yalt bi daa dugg ci awraam fu ñu ko yóbbu docteur docteur yóbbu nañ fa ñu def ay rajo analyse def lu ne xool fu ne deretam fu ne ñu xool lu xew gisuñu dara ñu ne ko dara newul ci biir soxna si ne moom wóor na ko ne yalt baa biir awraam ñu faj faj faj faj faj mu ñëw faj biñ demee ci benn psychologue mu woo yi soxna si ñu ñëw mu ne leen da ngeen di dem ngeen rayal ma yàlla te buñ ko yëg su ngeen ñëwee ma faj bañ demee ray yalt bi mu ñëw tëral soxna si daal def lëx lëx lëx tuuti ci awraam daal di génne yalt ba mu ñu ray ne ko mi génn ca suba sa nga soxna sa daal di féex daal di wér kon li ko feebar li ko feebar lool mooy problème mu damir la bari na tey ñu tëdd ñu naan leen da ngeen a dara dañ koo ragal ba far corona wallaay dañ ko ragal rek ba far corona dañoo nekk di ko moytu di ko teggi di ko teggi ba far rek daal di corona parce que lu doon seen damir moo yëgoon ne dañoo. moo tax ma gëm ne liñ liñ ko tuddee nii mi ngi fi moom kenn du weddi feebar waaye xam naa ne it na fi li ma wóor mooy buñ defaatoon am at ca gannaaw andi test yooyu buñ testee daañu gis gars yi corona parce que loo ñuy yëpp gars yàgg nañu moom waaye dalil yi toogatu moo ñu daloon gis nga biñ demee ba ubbi nañ yoon ñu bàyyi waaj nit ñu dem ci lañ gis genn xéewal ku daan jàng li ilaafi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ku fekkiwul corona mënu koo fekki gis nga njariñul rex la mooy te bëgg a dikk bëgg a dem dem bëgg a ñëw ñëw yëf yi dem ni mu war a ba mu ci ragal ragal nag ñett rek la ragal ci sa bopp wala ragal ci sa yëf wala ragal yàlla ñetti ragal yi ñoom ragal ci sa bopp mooy ragal ñu lor la ci sa jëmm wala ragal ci sa yëf ragal ñu jël alal wala dara wala boog ragal yàlla kon xaw fu ngir ñu génn ci rabba hasal baytin xoolee lii laa fi lim neexee saar wi te saar wi day jaamu borom ñiit ndax moo ñuy indil sécurité yooyu kon ci corona bi xam naa waxtu bi dafa xat mooy jëlaat rek ñaari point laaj taxaw waaye bu ñu bokk na ci liñ ci mën a jàngate ci corona bi mooy ndekete xam-xam bi ñu dox ci bayna ilmiya wal mantiq saxul waaw li lépp luy dox ci diggante ilmiya wal mantiq li dox ci logique ak science saxul taxawul lii firnde bi mooy tâtonnage bi dafa dem ba ñu ñëpp wóolootuñ ñi ñu jiite da ngay xëy tay ñu ne masque yi kenn waru koo takk bu subaa ñu ne façon masque bii lañ takk fa lañ war a takk dem ba yàgg di toog ci télé naan ñii lañ ko war a takkee dem ba yàgg naan da koy ñu li ñu jënd léegi ñu nit di takkee deux de temps da ko war a sensé ñu ne fóot leen mu leer ne yéen mooy nag dëpp gi kon da nga ci yëg sociale yi amul sens ci feebar biñ ko waxee ñu ne pour la ñu ne ñoom dañoo jël ay nit quarantaine leen 14 jours bañ leer na feebar bi nekkul ci ñoom ñu ber ci lu mat 100 kenn ku nekk ci sa néegu bopp biñ doxee lu mat weer ñu testé leen ñoom ñëpp dañoo positif ah lu leen wàll nee na biñ gisee loolu am nag lañ ne nañ gaaw dem ci nature bi mais dem nañ ba ci super super superme bii la ci góor sax dem nañ ba yàgg muy almana bii dem nañ ba. feebar bi mi ngi moo tax ñoom ñu daal di gis nga bi ñu defee déclaration bu ngeen dégg Espagne daa di def seen manifester bu mag boobu ne masque yi day day nga dégg France yi daal di def seen manifestation bi ne masque yi day day ba léegi fi ne Sénégal ñu ngi leen di bëgg a gëmal daa lëmbe doxantu doxantoom ba war a ñibbi ñibbi fi ne buy dem nii bu neexee ñëpp ñu tekki nekkul ne damay damay contester masque wala loolu waaye nag buñ mës a gëm ne masque yi nañ gëm ne ñu ndigal lañ koy teg ndax réew day dox ci ordre waaye nit ki war naa tuuti lool mu gëm ne masque bi mooy dellu gannaaw feebar loolu moom day tuuti lool moom day feebar day day doyadi lool lool lool amaa nag day réew kenn du ko yóbbu ci désordre si kenn du ko yore réew réew dañ koy teg ci ay luwaa yu leer muy dox waaye nag du tee nag du tee nag euh, ngëm-ngëm yi kenn moomu ko danañ xam lii saafara ak lu lu saafarawu ci boobu kon ma jeexale ci élément bi mooy corona ci wàllu jikko corona ci wàllu jub corona ku ne ku ñu ne ndakaaru mën naa ñetti fan du dem boîte de nuit du def nuit blanche du dem soo loolu da nga ko daan weddi da nga ko de faw rek mu def benn blanche am wala mu dem boîte de nuit wala mu dem nangam waaye dañoo xëy xëy rek corona ñëw lii firnde ji mooy xaw ma nit ñi seetlu nañ wala déet jamono bi corona bi feeñ dafa dajeeg jamonoy tàngoor yu métte métti moom la war a doon waaye dafa mel ni dafa andi benn piix ci àdduna bi mu dal xaw ma ñi ngi yëgam déet na boo demee ci réew yi dund gëm-gëm foofu étude yu xóot mi ngi fi ndax lu tax dañoo dañoo sori jikko yu bon ya ci boobu jamono ba ruu yépp yëg ni nit ñaa ngi ci jàmm ruu yaa ngi ci jàmm te ruu bu fiixee rek nit féex su fiixee rek nit féex te ruu yi fiixoon na ci jamono boobu jamono boobu yi nit ñëpp amoon nañ temps wu jaamu yàlla durusum alxuraan mi ngi takkar naas bokk na ci nag ci wàllu jikko mu xool ngeen ci jikko ba ca politique see ba te teeree politique ba ñëwoon duñ ànd jéem nañoo di ko joxante loxo ne nañ leen ànd boo demee ca daayira ya ñoom ñëpp jéem nañoo daje ñëpp a ngi jéem a daje daje bu du dajaloo fekkee du dajaloo kon ay xol ñoo daje kon corona liggéey na lu rëy rëy rëy yoo xamante ne bu ñu demaan ci ay liggéeyam dana am solo lool su ko defee mbokk yi lii ay jàngal la rek yu ma ci làmb daj ko thème bi comme damaa jiit tam xaw ma lu moo tax ma gàttal waaye waajaloon naa lu ëpp lool ndax bu fekkoon dañuy jël temps bu yaatu damaa waajaloon ñu def benn étude yi cinq puissance yi gën a mat ci àddina andi ak seen jiw ñu toog nafar ko ñun jullit yi gis suñ ko defoon suñ ko defoon rek Afrique gii war a xoolaat nan la ñuy def gis nga Afrique fi mu ne ñoo war a yilif ci biir corona bii lañ waroon a yilifee adduna bi waaye dañoo ñëw may leen loxo naan leen jóg leen jóg leen la jóg leen nootaat yi jóg leen toogaat ci suñu kaw mais diggante boobu ñuy rëppeeloo ñoom ñun boobu lañ waroon a jóg gaaw bépp moyen bu ñu manqué ñun ñu exploité ko jaay leen ko teg leen ay sart waaye ñoom dañoo gaaw rek tam ñu yuuxuñu ne a corona dem ba yàgg sax di ñu daw ñun ñun ñun ñun ñi nga xam ne déelewuñ sax du ay junni <laughs> ñun ñi daw ñu nekk ci kaas waaye rek alhamdulilah asalaamaaleykum wa